mu am lu mu yóbbul njobootu jullit lépp loo bugg a jox keneen te jullit mun ko jox ko jullit bi nga gën a may lislaam doole waaye léegi ñun de suñu école yi sax amul loolu dangay jur sa doom na yóbbu ko ci école làbbe yi ñoo dàq jàngale yaa ngi xas sa diina yóbbu ko ci privé catholique yi ndax ñoom ñoo gën a am yàll kon da nga sa diina ga amul yar fan yi am na benn école ci Sénégal école école yooyu la nee na ku fa ñëwati bul muurooti ci biir yow moo xam ne jullit téeméer boo jël quatre quinze yi ay jullit lañu ñu ne bu kenn muurooti ñoo foofu ñu ngi xeex lislaam nañu génn suñuy doom ñu yóbbu ko suñuy école léegi ñu dellu gannaaw ñu ne bu jigéen tëj ay bouton ba yegg ci baatam kon nañu génne seen ween lañu bëgg a wax ci biir Sénégal fan yëpp ñu ngi xam ngeen école bi benn équipe bu football noonu la tudd benn xale bu jigéen tëj ba ci baatam mooy nañu feeñal seen ween yi ñu ñàkk jom benn xale bu jigéen bu mu muuroote nañu bàyyi seen école yi ñëw suñu école yi yàlla na jullit la ngay dàq mu jëm kër nee na laa laa ya taxit bu mu jàpp mukk àll moo ne waaye gëm yi bu ñu jàpp alkaafe na yéeféer yi awliyaa ñuy seen ndend ñuy seen jëflante euh, ñuy seen adversaire min duni mu am na walis waay gëm yi man yafal zalika képp ku def loolu nga bàyyi julli di di dimbale ñu dul julli di ah fa lay sa déet minallahi ci yàlla fi shay'in ci dara kooku na xam ne du dara ci yàlla yàlla du dara ci moom ah illaa xanaa boog an tattaqu ngay bëgg a fegu ngay bëgg a mucc minum ca ñoom tuqaatan ak fegu bu fekkee nag réew mi ñi fi ëpp doole mooy ñu dul julli ah na nga maslaante ak ñoom waaw ëpp duñu ay jullit walla territoire social di jullit am na nooy def mu dàq la da nga masla ak moom da nga masla ak moom lii na ko def yenn jamono am nga benn ganaar nga ñëw jox ko yenn jamono yi tabaski wala korite nga ñëw jox ko dara yu ni mel ngir sàcc xelam ba mu bàyyi la nga mën a sabablu te nekk ci sa diina tuxaa boobu mooy loolu loo xam ne boo ko mënee def mu fanqal la musibaam dafa loola la na nga maslaa waaye buñ la maasale mukk maslaa baax na waaye maasale baaxul de yal na yàlla defal jàmm yaa rabbi yàlla mi leen di mooy